Khalifa Sall ak ñoom ñi waa CREA yi doon topp ak mm-hmm. yooyu ñëpp dafa volonté politique de mm-hmm. poursuite mais mm-hmm. fii buñ ko fàttee et c'est une manière pour moi-même de répondre à Malal tout à l'heure qui li ñu seetlu léegi mooy dañuy banaliser la levée mais dafa war a banal député du nit député nit la bu ay nit tànn mais entre parenthèses chaque jour député violé code de la route dañ koy dóor dañ koy dóor kii bi wala euh, nu mu tuddati. Euh, contravention contravention bi dañ koy dóor wala wala day fay 6000 wala du fay 6000. day fay dañ koy daggal bindal ko. dañ koy fay wala foofu tam dañu war a convoquer immunité. bon immunité lu baax la ci réew. parce que pouvoir yi dafa war a am équilibre. Mhm. député bi dem taxaw ci pencu askan wi. di fa toogal askan wi di am ay kàddu yu mu fa yëkkati di am ay position yu muy jël bu fekkee ne protégé woo ko mais kon république amatul mais nag dafa war a banal qu'on poursuive un député dans une démocratie dafa war a banal qu'on pour poursuivre même si par ailleurs ñeneen ñi ministres yi amuñu immunité mais am nañ benn genre protection tey ministre tey mënoo ko déglu tant que amul autorisation wu président de la république euh, tey suba non démb sama benn xarit dafa ma yónnee benn kii benn élu. bu bokk la république en marche. en marche bu ñu dóor trois ans pour viol dañ ko porté woon plainte et cetera et la procédure a pris son temps ñu dóor ko démb trois ans. dóor ko benn je pense même le procureur avait demandé deux ans juge bi trois ans nañ koy dóor. seen affaire viol en réunion ak seen affaire demee noonu bref pour revenir sur dossier bi man dama bëgg booy lépp luy wax rek nga indi argument bu ko bu ko leeral bëgguma ñuy wax ci ay sama xalaat mhm. dañu bëgg ñuy wax ci ay fait fait bi mooy gendarmerie woolu na Ousmane Sonko bi nga xamante ne dañ ko joxoñ mhm. baaraamu tuuma mhm. mu ne daw ma ndax man député laa loolu mooy fee yi à la man maa ngi ko seetaan ni defe naa si seen benn concurrent moom moo fa nekkoon en direct jour boobu mu ne daw ma li fekk dindiwuñu sama immunité bu ñu ko dindee dix heures dix heures cinq ma dem moo ko xool wax ko léegi ñun fee aussi mooy le maître des poursuites le procureur de la république saisir na jël na dossier bi ci gendarmerie jox ko juge d'instruction jël na réquisitoire euh, su la forme d'un réquisitoire introductif jëlaat na xalimam bind. lettre jëmale ci ki ko yilif mhm. pour kooku demande à ce que ñu lever immunité parlementaire. question bi ñu ne ñu ne ex bi dañ ne citoyen euh, maa ngi juum de <laughs> sama xarit Facebook la. ndax nga sax man mi laaj ko laaj ko sànq noonu laa ko doon woowee ndax yow <laughs> nee na juge d'instruction bi ñu <laughs> ko bi ñu ko saisiré d'un réquisitoire introductive boo xam ne dañ ci viser x balaa muy def dara dafa war a enquête yow loolu nga wax loolu mooy sa loolu mooy sa position mooy juge bi mun ta def lenn mënta déterminer ex lu dul à la suite d'une enquête mm-hmm. ñu toogee léegi di wax am na sama benn xarit qui est magistrat qui m'a envoyé ay éléments pour vous dire que c'est pas vrai dès lors que juge bi saisir nañ ko il a deux possibilités déterminer x à la fin de son enquête de l'enquête qu'il va mener loolu mooy dans peut-être dans le cadre d'une personne normale ah comme man mhm. nga xamante ne aw mu malaanu kii lay amul dara ou bien désigner x tel que le dossier le lui permet moo tax ma ne la question man bi may laaj mooy bu fekkoon ni moom dafa désigner x selon le les éléments du dossier mais xanaa war na bu am benn acte de procédure boo xamante ni daf koy delloo procureur de la république pour que procureur de la république léegi war a mën a sukkandiku ci acte boobu pour demander à ce que ñu lever immunité parlementaire loolu mooy question bi waroon laaj sànq est-ce que am na jokkalante boobu diggante le juge d'instruction wala juge d'instruction moom benn xuusma ñàpp la rek bu ko procureur ni jàppal ma Moustapha même si x lay def rek mu ne ok nañ ko jàpp il faut que loolu ñu leeral ko. xam nga même tuuti ma terminer. xam nga difficulté et puis euh, difficulté sujet bi sur un plateau de télévision xam nga mooy lan. oui à moins que kenn ci yéen nekk un un véritable praticien du droit. du droit. ce man doonu ma ko en tout cas. oui ce que te nee naa la sama début propos jàng droit. génne université Cheikh Anta walla wala UGB mën nga faa ro jàng ba am doctorat te doo xam procédure pénale ndëng sërëx yi ci nekk ak loqati. d'ailleurs am na avocat ay procédurier. non man gis naa dëmb sax. avocat yooyu nag. exactement ay ay procédurier. te xam xam naa kañ ngay. wuy ma non non lii xam naa sax kat ngay junj. non dafa nang rek effectivement dafa nang rek. mais na koo am na koo xam ne mu nee nañ moo ci moo ci ko am koo xam ne nee nañ moo ci sut. mu ne noonu. Euh, juge d'instruction mënoon na oh, def enquête balaa muy dem laaj. mënoon na attention la non non dafa nang dafa nang man maay wax nag. Uh-huh. Moustapha bu waxee nga dagg ko <laughs> Sall bu waxee nga dagg ko ki <laughs> la bu waxee nga dagg ko fii ñun ay journaliste waaw ah, ñun ay journaliste waaw non non lamiñ lamiñ mën da lekk moo romb bàyyi rek ma wax <laughs> bu ma paree nga wax dama ne xam nga boo nee waaw dama ndànk rek yaa ngi koy yaa te boo nee déglu leen ko déglu boo nee mënees na mhm. ak dafa war a ñaari ñaari différent la surtout dit que le juge d'association doit obligatoirement avant de désigner X par une personne, mener une, euh, enquête. Et si tu dis qu'il peut. Beaucoup. Mhm. Beaucoup. Mais, mais moi, man, Bamba. donc, moi, je ne moi, moi n'étant pas, n'étant pas un spécialiste, n'étant pas, n'étant pas, n'étant pas un wala un procédurier dama ne ñun li ñuy jàpp rek mooy fay ñun ci fay nañ mën a yem yow mi nga xamante ne da ngaa bokk ak ki ñu tuumaal bu la neexee nga interpréter fay. interpréter ma ay fay. merci dama bu la neexee nga interpréter ko interpréter wu ma ay fay. non si parce que non dama nag xaaral ma wax la déedéet xaaral ma wax la interpréter wu ay fay. waaw d'accord ci gis lu leer. xamul leer dafa nank rek dafa nank rek da nga wax sànq. xaar mu xamul da nga interprété. xam nga lu tax ma ne ko da nga interprété man li ma def. yow xamal li ngay def yow. mais bul xam man li may def mais say kaddu la. déedéet yow yaa ne. Hmm. yu mel ni bu amee gendarmerie du waroon na jël temps. déet waxuma waroon na jël temps. tamit waxal ma li ma wax. loo wax na fi enquête yoo xam ne jël nañ. temps jël nañ temps 3 mois voilà ba def 3 mois joxe lu ñu yàkkam ci joxe ndànk rek ñu dañuy waxtaan. on le laisse on le laisse pour xam nga man citizen li ñu fi indi ku nekk li la fi andi. man li ma fi andi du ñëw joxoñ baaraam tuuma wala nangam ak nangam li ma fi andi mooy ñëw wax sama xalaat rek j'ai pas dit ça donc. dafa ne gendarmerie waroon nañu enquête ba pare lu tax procureur di yàkkamti dem di jëli dossier bi. question la waaw léegi ñu posé beneen question. question bi mooy une enquête elle est elle est contradictoire si la gendarmerie ah, ne peut pas mener une enquête contradictoire du fait du statut du mise en cause ou du fait du statut du présumé waaw bu fekkee ne gendarmerie mënut a def enquête bu yemambaay ndax contradictoire mooy dafay. yemamaay mën na xaar ñu lever. immunité parlementaire mais nu koy xaaree mais nu mais enquête kañ moom mën enquête durée durée enquête fi mu toll nii li mu wax dafa mel ni moom. gendarmerie mënatul woon déglu Ousmane Sonko bu ñu lever immunité parlementaire non moom moom dafay dagaate. non déedéet parce que boo waxee loo xam day andi jiixi jaaxal sama devoir la. gendarmerie nan lay xaar non léegi der der je te pose une question et je laisse la parole. mu ne gendarmerie mënoon na xaar. dé am na fi enquête yu fi duré ay ay weer pourquoi ñu bëgg ko. léegi man benn question rek laa xam ne du ma léegi damay laaj. dañuy léegi man ma laaj la. Hmm. la question logique ñun ay journaliste nañu. loo wax rek dañu andi question bi nga xamante ne moo ko war a faram-fàcce. ñun tamit ay <laughs> ay journaliste mais am nañ logique. Ah, li mu ah, léegi ah, xaaral encore léegi xoolal dama ko bëgg a topp si lu ah, na xaar ba ñu lever immunité parlementaire. départ di mënoon j'ai pas dit mais attends lui tu es un tissu de contradiction extraordinaire. gendarmerie il faut léegi ah Ablaye Nder Ablaye Nder mu yeggali rek non damay léegi damay yeggali ah non non non non dama ne qu'est-ce qui a fait que gendarmerie enquête fii ci ay dossier ay weer te kenn yéegul hmm. te bii procureur ne ko foccet seen loxo jël ko jox ko juge d'instruction mais jox nañ la élément de réponse yu bëri yoo xamante ne tam suñu xel nañ ko jëlee nee nañ la lii c'est une affaire de viol et après le viol a été ah, ah, criminalisé enquête déedéet déedéet enquête enquête la dama déedéet déedéet Charles déet bul ngën fekk bett ma dóor ma ku bañ. procureur ak lii lii c'est pas la pareille li muy jox li muy jox juge d'instruction. c'est pas c'est pas pareil enquête mën na bàyyi gendarmerie enquête. booy bu leen réyal waaw léegi gendarmerie nu ñu enquêté gendarmerie dama wax ma. naan ni un à wax nan la gendarmerie di defee une équilibré ah contradictoire bu fekkee ne mënul jël ci une par exactement man loolu rek laa lii c'est le vrai problème loolu rek laa ko laaj non non ci sama xel bu gàtt su ko defoon sax foofu la leen di jiñ parti la gendarmerie comme il dit lii li nga baal ma rek lii lii mais lii doo ma déglu lii lii s'il te plaît lii lii on est d'accord lii mhm. donc bu ñu ma samay wax parce que interprétation ci samay kàddu mooy andi li Charles naroon def nii eh viol non déet on a dit viol nga ne et après moo tax ma ne la Charles voilà et après aussi non Charles bu ko il voulait dire comme d'autres enquêtes faut pas non je suis désolé mmh. les, les mots ont leur sens quand tu dis et après attends tu as mais tamit mën nga ko interpréter jox ko benn sens mais foog ñu comprendre man j'ai posé une question waaw j'ai posé une question lu xew ba procureur mhm. ne foccet dossier bi mhm. d'accord jox ko juge d'instruction mais parce que le le le principal yeneen indice yi feeñoon yeneen yeneen indice yi feeñoon bu fa bàyyiwuñu gendarmerie c'est kon na ci enquête nous on n'a pas de problème avec la section de recherche te dama dégg yéen ñaar sànq mu mm-hmm. génn seen kàddu mm-hmm. ñun dañuy rafetlu liggéeyu force de l'ordre yi mm-hmm. ñëpp xam nañ la gendarmerie gis nga am na yoo xam xamante ñun duñ ci débat c'est des patrimoines yoo xam ñun ñëpp ko bokk ki nekk pouvoir ki nekk opposition te dañoo war a sonn pour ñu dooleel leen je on n'a pas de problème avec les forces de l'ordre mais li ñuy wax tamit mënuñu ñu ko bañal foog ñu nangu ko ay contradiction feeñ na ci enquête bi Mais pourquoi on n'a pas laissé la gendarmerie poursuivre On a cité des mmh. personnes, on a cité des gens, on a donné des indices. Hmm. Mais ces gens-là, enquête boobu mënoon continuer donc man loolu donc laa wax. ok donc waxuma fi luñ fi réew. wala luñ fi grave mais mooy xam ma wax ñu la euh, euh, euh, enquête. mooy. leeral. mooy non non parce que ay Sénégal la ñu waxal. Hmm. enquête xam nga mooy lan. Hmm. da ngaa tuumal sa waay. plainte da nga ko tuumaal da ngaa ñëw ci man tuumaal der du dëgg nga wax ma yow. yoral na ma 100000 waaw dafa nànk rek. yoral na ma 100000. waaw nga ne yoral na ma 100000. <laughs> man laaj la cent mille nu la ko yoralee nga ne ma dafa koo lebal ak dafa def nii dafa def naa keroog dafa ñëwoon otom paan mu war a jënd moteur nag nag et <laughs> boo paree nag rek bi corona bi passé dama nga jox parce que waa def ne booy jox booy jox bu vingt mille dama ah, pas une preuve dañ la may présomption présomption d'innocence donc yow ma ñëw ci man